bismillahi irrahmani irrahim sala allahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli alxadiisu thaaminu juróom-ñetteelu xadiis nee na an ibni umara jëlee mm-hmm. nañ ci sayiduna abdullahi mm-hmm. doomi sayiduna umar ibnul xataab na yàlla boole leen gërëm radiyallahu anhuma anna rasulallahi ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam qaala wax na mm-hmm. ne umirtu man dee digal nañ ma dee ci wolof fi saalum ñu ne digaleef na ma waaw wolof yi wolof sax hmm. digaleef na ma hmm. dañ ko binaal hmm. lima lam yusamma faa'iluhu ki ko digal moom xam nañ ko lamal luñ xam ci luxa dañ koy jëfandikoo ci lu bari moo xam ci mbiru àdduna ba ci mbiru sharia yàlla dana wax ni wa xuliqal insaanu daifa hmm. doomu aadama bind na bindeef na ko hmm. muy aji lompoñ hmm. xam nañ ki ko bind mooy yàlla yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam dana wax ne umirna an nasjuda ala sabaati azumin digaleef nañu ñu sujjóot ci juróom ñaari yax ki digale xam nañ ko mooy yàlla umirtu ngir mm-hmm. danañ ko lëmal ngir réyal ko mm-hmm. umirtu digaleef na ma mm-hmm. man muhammad sallallahu alayhi wa sallam an uqaatila ba ma xeex ak déggal de waxul ba ma rey de xeex ak rey du benn ba ma xeex ak annaasa nit ñi mu jublu ci yéeféer yi xeex ak moom ndax baatu naasu yàlla dana ko wax fekk nit ñëpp la ci jublu mm-hmm. yaa ayyuha nnaasu ubudu rabbakum mm-hmm. ñëpp a ko moom mm-hmm. dana wax naasu it fekk lenn nit la ci jublu fekk sax kenn la ci jublu alladina qaala lahum nnaasu kenn nit la moo ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam quraysh yi dee ñu ngi lay fexeel fexe moo xam ne mm. ñu ngi amee doole joo xam ne mm. yàlla kenn nit kooku firee na ko nit ñi mm-hmm. na naasa mm. yéeféeri Quraysh mm-hmm. du nit ñi ñëpp mm-hmm. kon moo tax dégg dana tax nit xam fu muy teg tànkam boo ko déggul da ngay nit ñëpp lañu ko digal mu xeexal te déedéet euh, lenn nit yàlla nee na ko laa yanhaakum allahu an alladina mm-hmm. lam yuqaatilu mm-hmm. yàlla terewul leen mm-hmm. ñi nga xam ne xeexu xeexu ñoo génn walam yuxrijukum min diyaarikum génnewuñ leen seen kër an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim hmm? wax na ko sax ci alquran ci suratul baqarati ko wa qaatilu alladina yuqaatilunakum bu ngeen dee xeex na ngeen xeex ak ñii xeex ak yéen mm-hmm. mm-hmm. wa qaatilu alladina yuqaatiluunakum fi sabilillah wala taatadu waaye bu leen jàggati de ndax mm-hmm. inna allaha la yuhibbu mutadin umirtu digaleef na ma an uqaatila ba ma xeex ak naasa nit ñi xatta yashhadu illa la wala gaaya la bañ seede mm. an liy mbir tey mbir mm. laa ilaha illa allah mm. yàlla rek a yàlla doy na déedéet wa anna muhammadan ak naka muhammad waxul wa anni te mooy waxkat mën naa wax ne ak naka man waaye jëf yi du lu personnel muhammad mm-hmm. jublu ci doomi abdoulaye ji bokk quraish waaye mi ngi ci jublu muhammad mi mm-hmm. yàlla wàccee ci moom waxi mm-hmm. rasulullahi ndawal yàlla mm-hmm. ak ñu seede ne muhammad ndawal yàlla mm-hmm. doy na déeréet mm-hmm. yooyu dafa am lawazim di ba ca njëkk mooy wa yuqimu ak ba ñu taxawal salaata julli doy na déeréet am na loo xam ne kenn mënu koo tàqaleeg julli mooy azaka moo tax wa yuutu ak bañ joxe zakata azaka loolu mooy ba ñu taxawee yu war yi rek waaye yiyee ci gën feeñ gën cee fës mm. gën cee mët mm-hmm. moo tax mu tudd leen mm-hmm. fa ida faalu dem def nañ daalika loolee mm. asamu tere nañ mm-hmm. asamu musal nañ min ni ci man dimaahum seen deret ñoŋal nañ leen wa amwaalum ak seen xalal yi ah bi xaqil islaam deret ci xaqil islaam nag niki koo xam ne dafa jël deretu jàmbur ci tey hmm. kooku moom fayu rek hmm. wala koo xam ne dafa jël alali jàmbur hmm. ah kooku delloo rek buñ defee yi nag wa xisaabuhum seen xisaab mooy xisaabu seenu biir ndax dëgg la ju ñoom ak du dëgg ñoom alallaahi yàlla la war taala mu kawe mi kooku yàllaa ko yeeyoo li ci biir yàllaa ko yeeyoo ñun li ñu xolloo rek mooy li ci biti rawaahul buxaariyu wa muslim xadis ju yaatu la ju bëri jëriñ bokk na ci liñ ciy jànge ne yonent bi kat sallallahu alayhi wa li muy foor foor du yàlla juy digle waaye jaam bu ñuy digal ndigal yi muy joxe it mi ngi ko sof rek ci ndigalu yàlla moo tax mu ne umirtu digal nañ ma mm. kon du moom mooy joxe yàlla wax na bu yàgg mm. ne bismillahi irrahmani irrahimi wa najmi ida hawe mm. maa dalla saaxibukum wa maa gawe wa maa yantiqu an il hawe in huwa illa waxyu mm-hmm. lu mu wax rek yàllaa ko wax waaw mm-hmm. ah. mm-hmm. ñaareelu njëriñ bi mooy daganuk lëmal luñ xam lu tax parce que ki ngay waxal xam na li nga lëmal mbaa xam na ki nga lëmal mm-hmm. bu ne umirtu mm-hmm. lëmal na ki digle mm-hmm. ndax yow mi muy waxal xam nga ne kenn rekk mën a digal yonent bi te mooy yàlla subhaanahu wa taala moo tax waxin danañ ko danañ waxin danañ ca lëmal te dafay tax wax ja gën a leer sax dafay tax wax ja gën a imaam Busiri nee na wa shiddati zuhuri xafaaw kawtéef mm-hmm. nekk na ci taruk nëbbu mm-hmm. taruk feeñ mm-hmm. xafaaw ak nëbbu lu feeñ ba ëpp rek nëbbu waaw waaye lu feeñ ba ëpp boo ko bëgg nëbbu mu gën a feeñ te yàlla fa feeñ ba ëpp subhaanahu wa moo tax boo boo lëmalee rek gën ngaa feeñal mooy kan ñetteel ba mooy waruk xeex ak yéeféer yi nga xam ne ñu ngi xeex ak jullit ak di leen wut a génne seeni barab innama yanhaakum allahu an alladina qaataluukum fi ddiin wa axrajuukum min diyaari wa daaharu ala hmm? kenn du wax ne xe ndigal lay ndigalu listihbaab la ndax ndigal dana dikk ngir ñaar dana dikk ngir war ni hmm. ki aqimu salaata wa atu zakat hmm. waaye dana dikk ngir listihbaab hmm. fekk sax li ñuy digle des koo sopp dañuy wax ne luñ digle te dogu ca mooy lu war bu yéesee dogu mooy luñ sopp fa ma'murun juzim fardun wa dunal jazmi mandubun wasim loolu la bon ibnu ashir waaw am na sax yeneen xeetu ndigal hmm. waaye taxul ñoo jóg hmm. nga ndigal dana dikk ci alquran hmm. fekk dafay daganal yàlla wax na ci alquran ne wa ida xalaltum su ngeen xeewee koo ci aj gi fastaaju na ngeen rëbbi ndax mos ngaa gis ku ñib si aj dem rëbbi déedéet gannaaw dafa xaraamaloon rëbb ci biir aj gi bu la ne bu ngeen yeewee koo rëbbi leen mooy mën ngeen a wa ida xalaltum fasfaadu digal dana ñëw ci alquran fekk sax tasxiir la mooy dafay transformer nit ki mu nekk leneen ni ki wax ji mu wax ñëpp moyoon ne leen koonoo nekk leen xiradatan di golo loolu mooy def naa leen golo rek loolu ndigalu tasxiir la ndigal dana ñëw fekk daf lay dolli xel rek mm-hmm. yàlla wax na ne ida tadaayantum bi daynin ila ajalin musamman mm-hmm. faktubu mm-hmm. day bañ ëllëg ki nga ki nga jox bor mu miin bu fekkee nag ne bañ nga loolu am ak problème am bind leen ko waaye firiwul ne kuy kuy bor kuy digale kuy kuy jëflanteeg nit ci bor rek da ko war a bind déedéet daf lay xelal rek ndigal sax dana dikk hmm. fekk dafay tëkku hmm. ci alxuraan laa wax ba léegi hmm. ndigal dana ñëw ci alxuraan fekk tëkku la ñu ngi wax ab jib ne i'malu ma shi'tum def leen lu leen neex xam nga ki la tere digal la su xëyee ne la defal lu la neex daf lay tëkku wala sa njaboot tàggoo nga tere ko mu tàgguwaat la nga tere ko mu ñëwaa nga ne ko defal lu la neex mu ne ah, sama baay may na ma ndigal xamul li nga ko wax i'malu ma shi'tum la ca tege moo tax xamal ne tëkkul innahu ndigal dana ñëw fekk sax yemale lay mm. lay lay ne mm. fasbiru aw laa tasbiru mm. mooy bu ngeen ci def muñ leen wala ngeen bañ a muñ ndigalu yemale la mooy muñ ngeeg bañ a muñ ngee yem sawaawun alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun ndigal dana ñëw fekk ñaax lay doon ci xéewal gu yàlla joxe di hmm. ki wax jim wax waa aljana kulu washrabu hani am bi ma aslaftum hmm. fil ayaamil xaaliya hmm. ndigal dana ñëw fekk dafay yëjji aka tuutal aka sabote noon ci noonu yàlla yi ni ki wax wax jëm wax ne duq innaka anta al azizul karim yéeféer ya lay wax Mm-hmm. waaye ci sharia nag mm. bu ñuy wax ci xeeti ndigal yi fii mm. ci jublu mm. ndigal lu war ak luñ sopp mm-hmm. bu fekkee yàlla dafa digle jihaad nit ne ah comme ndigal la te ndigal yelloo na wala jamtalu na ci jamtalu na maani yëpp lu tax kon du luñ sopp rek mm-hmm. ñu ne déedéet lu tax du luñ sopp mooy dafa am lu xaraamoon lu cay daganee mm-hmm. te muy tuur deret mm-hmm. te lu xaraam moom mm-hmm. lu koy daganal rek lu war lay doon moo tax jihaad wu jóob rek maanaa wu jóob rek lay mën a amee mënta am maanaa l istihbaab ndax sopp tuur deretu jàmbur kooku xel nangu looloo tax borom xam-xam yi ne jong dafa war ndax dagg cëru jàmbur la mm. dagg cëru doomu aadama la te mm. doomu aadama cëram dafa am war ma mm. luy tax ñu mën koo dagg rek ak war moo tax borom xam-xam yooyu bëri ne yongu ci sunna rek waaye su lu la mm-hmm. kon jihaad farata la danañ ci jàngee ne eh, lim nekk farata farata it duul ne ñëpp ko war a taxawee mm. ndax farataay kifaaya la mm. lu dul ci yenn jamono mm. li ciy tegtal mooy wa ma kaana al muminuuna li yanfiru kaafa jaaruwul jullit yëpp foñu walaw laa nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqahu fi ddin wa li yundiru qawmahum ida rajacuu ilayhim laallahum yaxdarun ana am ñu dem taxawee jiyaat am ñu dem taxawee jàng mm-hmm. ngir mën a xamal ak mën a ñaax mm-hmm. ak mën a musal jullit yi ci réer mm-hmm. bokk nañ li ñu jàngee ci xadis ji waru seede ne yàlla rek ay yàlla ci xol ak ci làmmiñ waru waru yàlla rek yàlla ci xol ak ci làmmiñ ndax ki ko fas rek te feeñalut ko taxul mu mucc fokk borom feeñal ko su ko feeñalee nag ñu jàpp ca lam wax rek ndax xataa yashhadu la wax mm. shahaadatu nag làmmeñ a koy def mm. fekk yaa ngi ko gëm ci sa xol mm. gannaaw nag ñun amuñu accès ci xol yi ñu yem ci li nga xam ne moom la làmmeñ ñu wax loolu nag mooy musal nit ci àdduna musal ko ci àllaaxira mm-hmm. fokk mu fas ne yàlla rek yàlla du mm-hmm. ko fas rek mm-hmm. waaye na ko jëfee hmm. ndax am na ñu fas yàlla yàlla gi te hmm. fekk ña ngaa jaamu hmm. leneen ba keneen ko dugg yàlla kon na fas ne yàlla yàlla la waaye na fas ne moom kotte yàlla te na ko jëfee ci jëfam na ko wane ci jëfam dégg ñu jàngee ci ne ashhadu an laa ilaha illa llaahi dooyut feek ashhadu anna muhammadan rasulullahi jëkkut mm-hmm. ndax mm-hmm. am na ci ñooñ diine ñu gëm ne yàlla rek a yàlla mm-hmm. waaye ñi nang ñàkk nangul gi ñu ñàkk nangul yonant moo leen def yéeféer te kat ku ca sincère ci ñoom da nga fekk melow yonantu ci seen diine muy ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu woon yaarifuunahu kama yaarifuuna abnaahum kenn ci fóore yahudi mm. ñu abdullah ibnu salaam mm. nekk na saxaaba yonantu sallallahu alayhi wa mm. na moom ni mu xamee ne muhammad eh, yonantu la sax xamewul ko ne doomam doomam ndax ba mu gisee yonantu moom rek la xam ci màndarga yi mu jàng ci tawraat ne kii la moo ba mu njëkk a dégg yonantu yegg si madina xutbaam gu siiw googu ayuha nnaas afshu salaam wa atcimu ltaam wa sallu billeyli wannaasu niyaam tadxulu ljannata bi salaam nee na bi mu ko gisee dégg ko muy wax lim njëkk xam njëkk koo kanam gii dee du mu ne ni mu xamee ne yonantu la moo gën a wóor sax ni ne doomam doomam la doomam moom yaayam rek mën a waat ku ko waaye moom amul sikk comme gisee yonent ne kii la tawraat doon wax yàlla ne yaarifuunahu hmm. nañ ko moom yonent bi kama yaarifuuna abnaahum niñ xamee seen doom yi hmm. wa inna wante kuréel ci ñoom nag hmm. la yaktumuuna al xaq danañ nëbbu dëgg warum yaalam da fekk xam nañ ni lii mooy dëgg gannaaw shahaadatu anna muhammadan rasulullahi du doy de féeg jaam bi taxawal ndax mooy màndargaal ne gëm nga ne yàlla yàlla mm-hmm. yonentu mooy yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa mm-hmm. am na ci fuqahaa yi sax ñoo xam ne mm-hmm. dagal na nañ ne xeex ak ab dëkk ndax taxaweewuñ julli xeex ma bokkut ak rey niñ ko waxee bokkut ak rey am na ñoo xam ne sax nag wax doon taxawal julli dëkk ba duñ fa noddu duñ fa liqaam sax danañ xeex ak ñoom mm. ngir ne yooyu ñooy wane ne fii ñu ngi fiy taxawal mm. te yooyu loolu la yonent taa def sallallahu alayhi mm-hmm. sax julli eid am na ñoo xam ne dañ koo def mm-hmm. muy màndarga mu ñuy xeexee bu fekkee ne taxawal luñ ko ci mm-hmm. ab dëkk ndax lan ndax màndarga la ci màndargaay diine yàlla sha'ira min sha'airi islaam mm-hmm. yi sax su dee du farataay ayn mm-hmm. waaye mm-hmm. ñàkk taxawal julli dafay tax ñàkk dafay tax shahadatu an laa ilaha illallah anna muhammadu rasulullah ay des danañ ci jàng it warub azaka ndax xaaj la ci xaaj yim tudd ne digal nañ ma ma xeex ak nit ñi fekk taxawewuñ lii wala bañ taxawee lii looloo tax nga gis Seydina Abubakar radiallahu anhu ba yonentu sallallahu alayhi wa dëddoo fi jógee ñi taxawoon ni ñoom dootuñ joxeeti asaka gannaaw yonentu bi mu suñ ma teree buum buñ daan jox yonentu buum gi ñu maanaam mooy buum mooy moom la ñu gàtt mm. buñ daan jox yonentu ma xeex ak ñoom lu tax yàlla tàqalewul al ci alquran julli ak asaka mm-hmm. kon fokk jaam bi joxe asaka mm-hmm. jox ko ñi nga xam ne ñoom la yàlla tudd ne ñoo ko xeelloo mm-hmm. innama sadaqaatu lil fuqaraa wal masaakiini wal aamiliina alayha wal muallafati quluubuhum wa fi riqaabi wal ghaarimiina wa fi sabilillah wa bni sabil faqiir yeeg miskin yi wutee nañ kan a gën a ñàkk mm. miskin wax faqir mm. yëpp nag ñu ngi ko teg ci alxuraan ndax mm. gaal gi yàlla wax ne man ay miskin a ko moom miskin yu am bato miskin yooyu xay na ñàkkuñu torop wa ama safinatu fa kaanat wa ama safinatu fa kaanat li masaakin hmm? fa kaanat li masaakin ya'maluna fil bahr Mm. amma safinatu fa kanat li masakina yaamaluna fi bahr mm. ñu kon miskin yooyu am nañ mm. waaye ñu ne yàlla it wax na ci alquran yetiman za maqrabatin aw miskinan za matrabatin bu ñàkk ba xamut suuf sum lekk sax ba may tuut wala ñuy jaraaf yi liggéey ci asaka wala ñu ñuy miinal seen xol hmm. mooy ñu soog a bees wala ñi dëkk ak ñun te yéeféer ñu bëgg leen a xamal ne lislaam kat hmm. diine dimbalante la même su dee ñu am lañ hmm. wa fir riqaabi ku nekk ci buumu njaam ñu dimbale ko ba mu gore ci asaka ji wal gharimiina ki endetté te am bor mënu koo fay ñu dimbale ko ba mën koo fay ci asaka sabilillahi ki nekk ci toolu xareb yàlla bi mbaa ci bépp projet bopp yàllaa tax lu mm. mel ni ak école bu ñuy jàngalee diine mën nañ faa joxe asaka mm. wa ibni sabili mooy aji tukki mm. doomi yoon mën naa am sax fa dëkk ma ngi ay milliards waaye mi ngi ci situation boo xam ne mën mënta am accès ci alal jooja ndax ci eh, àll la nekk wala ci ab dëkk la nekk boo xam ne tumuranke la fa mën nañ ko jox mën nañ ko jox ah. yonentu ne sallallahu alayhi wa sallam defee yii ida faalu dalik ñu déggee ne hmm. jëf hmm. mën nañ ko boyal te jublu ca wax hmm. ndax lii yii mu tudd yëpp ay jëf ay jëf ak yi wax la waaye mu ne ida faalu dalik suñ defee lii kon danañ tudd fi'lu fekk fi'lu ja dana lamb qawlu ndax laa ilaha illa allah làmmiñ a koy def kon wax la waaye xol koy fas yooyu yëpp hmm. ak julleeg azaka hmm. mu ne fa ida ida faalu dalik hmm. suñ defee yi asamu min ni dimaa du noonu ñu jàngee ci ci xadis ji ah, yi ni yëpp kat mën naa am ba pare am lu tax deret dagan alal dagan hmm. loolay lan mooy xaqi lislaam hmm. xaqi lislaam hmm. yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wax na ne kuy seede ne yàlla rek a yàlla deretam du dagan lu dul ci yii murtat kooku ki ko def deretam dana dana dagan wala ku rey bakkan bu warta rey ku deretam dafay dagan wala ku am jëkkër mbaa ku am jabar ba pare njaaloo mm-hmm. yooyu dana tax daga deret dagan yal na yàlla wala musal ci yooyu mm-hmm. bu fekkee ne nag jaam bi moom mi ngee def li mu war a def mm. ci zaahir mm. ah kenn wax ne kii dafay ngistalu rek mm. waaye li muy def gëmu ci dara wala naafeq la rek waaye li muy def gëmu ci dara yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ki mel nii moom ñun li ci des yàlla lañ koy dañ koy dañ koy boole bañ koy bàyyi fa ida faalu dalika aasamu minni dimaahum wa amwaalahum illa bi xaqillahi wa xisaabuhum ala allahi taala nga bàyyi xisaab gi yàlla yow def nga li nga li nga war a def jottali rek moo la war ba nga jottalee bàyyil ak yàlla jaam ñu nag moo tax kiy def daawa xataa bu ko nit ñi dégluwut bu mu tax mu yàq yàlla moo ne yonent bi lasta alayhim bi musaytir illaa man tawalliya wa kafar fa yuazibuhu llahu al-azaab al-akbar wa dhakkir fa inna dhikraa tanfau al-mu'miniin in nafaati dhikra innamaa anta mudhakkir lasta alayhim bi musaytir te it ngay continuer def li ngay def rek néew na boo defee daawa te du am taasiir hmm. même su fekkee ne nit ñi ci njëlbeenu yoon weddi nañ la hmm. ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam ci njëlbeenam lépp ci waa Makka gëmuñ ko hmm. damay wax ne li Abu Bakar radiyallahu anhu dégg nangu ko ci minute bu njëkk ba jëlal na Abu Sufyaan radiyallahu anhu ñaar fukki at waaye nangu na rek boo dee woote it jëmee ci yàlla hmm. bëri mbooloo mi la eh, kontor hmm. bum la tiital hmm. soroyukaay ci yow mooy yonantu bi sallallahu alayhi ak yonantu yi ko jiitu woon Muusa li mbooleem Firawna mi di bëri bëri bëri ba mu taxaweek ñoom ñu bëgg ko tiital ak yañ def yëpp yàlla jox ko fit wu tax mu ne leen waylakum laa taftaru ala allahi kadiban fa yusxitakum bi cadaabin wa qad xaaba man iftaraa fa tanaaza'u baynahum fa tanaaza'u amrahum baynahum wa asarru najwa ñoom ña doon tiitalaat dañoo mujj tiit waaye fa yëf yi mujjee saxaratu firawna tuub nañ fa yëf yi mujjee yàlla alag na noonam te yooyu yëpp su amutit yow moom def nga li nga war a def rek xadis mm-hmm. ama ama am solo la mm-hmm. umirtu man dee digal nañ ma man muhammad mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam an uqaatila ma xeex ak annaasa yi féer yi xeex ak man digal loolu nag ñun ñëpp a ko moom waaye du ku nekkay tax nag ku nekkay jog nag jëfe ko wax ki nga xam ne moo jiite jullit yi kooku mooy jógloo jullit yi hmm. waaye ku nekk ci jullit yi bu jógee ne mooy fajal boppam hmm. bu ko defee loolu ak jaxasoo lay jur hmm. lépp lu am ci lislaam rek dañ koo noose ni nga xamee ne yonent moo daan taxawee jihaad di jiite naka noonu dëkk bu nekk njiit ya ñoo war a taxawee yooyee nit ñi topp ca ñoom digal nañ ma lii xataa yashhadu bañ seede an laa ilaha illa yàlla rek ay yàlla wa anna muhammadan rasulullah muhammad ay ndawam mm-hmm. wa yuqimu salaa ñu taxawal julli mm-hmm. wa yuutu zaka joxe asaka fa mm-hmm. ida faalu ndem def nañ dalika loole asamu musal nañ min nii ci man dimaahum seeni deret wa amwaalahum ak seeni alal illaa bi xaqi lislaam lu dul ci xaqi lislaam wa xisaabuhum seenuk xisaab seenuk rek le nag ala llahi taala yàlla la ñeel subhanahu wa taala rawahu albuxaariyu wa muslim wa salla allahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin amin wa iyaakum amin